الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان علينا أن نراجع أنفسنا صارت الدنيا كوارث موت حوادث أمراض بلاوى لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا انتصر الزنا والربا والفساد سلط الله الأمراض الفتاك وموت الفاجعة وغيره لذلك أيها الأحباب ينبغي أن نعود إلى الله يا من يسمع كلامي فكر في نفسك فكر في نفسك قليلاً watub ila allahi tawbatan nasuha mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu tur boroom ñuy ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi li nu war nun ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp li ñu war tey rawatina képp ku nekk kilifa mooy nu raaji anfusana ñu xoolaat sunu bopp ñu xoolaat sunu bopp sunu doxalin ñu xoolaat sunu ngëm fan la toll ci yàlla ñu xoolaat sunu diine xoolaat sunu biir kër yi xoolaat sunu bopp jéem nañ façon pexe yu nekk pour du am dund jàmm ci kaw suuf pour am dund gu nëtëx pour am féex pour nekk ci tawfiix mbir mi dëgër te tëj changé nañ ay président ba sonn waaye ba léegi rek ñaxtu yaa ngi continuer jafe-jafe yaa ngi gën a tar ndeke mbir mi nekkul ci loxo président yi ci borom président yi la nekk muy allahu subhanahu wa taala buur boobu subhanahu wa taala wax ne saa yu ngeen ma jubloo see rek gëm ma bàyyi ma xel ma defal leen jàmm ci kaw suuf waaye saa yu ngeen féttéerloo wane ginnaaw borom bi nee na ma nattu leen ngeen dund dund gu karaj ci kaw suuf moom yàlla subhanahu wa taala moo nu wax ci Qur'an ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري képp koo xam ne wala ñépp ñoo xam ne danoo dummóoyu sama njub ci kaw suuf borom bi nee na dinaa leen defal dund gu karaj dund gu karaj mooy lan mooy dund goo xam ne day ànd ak jafe-jafe day ànd ak metit day ànd ak i problème looloo tax mbokk julit yi ñu war a bàyyi xel sunu bopp nu raaji anfusana nu xoolaat sunu bopp tey adduna bi buñ ko xoolee biir ak biti lépp lëndëm ñu bari léeg-léeg ñu foog ne métit bi ñoom kese la ñaata dee la ñuy dégg par jour ñaata musiba la ñuy dégg par jour kon ndeke ñëpp la addina bi yëpp la ndax borom addina moo merewaa addina moom yàlla moo bind addunaam ba pare wàcce fi ay mbindeef sàkku ci ñoom nanu dund ni mu bëggee nit ñi lànk moo tax yàlla mettit adduna sunu borom ne xool leen tey kawaaris phénomène yi feeñ ci adduna yoo xam ne yëpp kat ay catastrophe la ay kër yuy màbb ci kaw nit yi ay bateau yuy këpp ay bomb yu explosé loolu yëpp lu ko waral mawtu fajaa xoolal deegu bett gi xawaadis xoolal accident yi amraad xoolal feebar yi daanaka léegi da ngay gis ku feebar mu leer la ne kii dafa feebar mu wóor ñëpp ne kii dafa feebar mu dem ci docteur yi ñu ne ko gisuñu dara lu tax parce que yàlla moo ko nëbb mooy secret yi waxoon na ne nit ñi saa yi ñu jàddee yàlla nattoo leen ay feebar yu seen imaam xamul woon lu tax parce que nit ñi yàlla mënul moom àdduna ba pare nit ñi nekk ci àdduna di yàq àdduna bi ba pare am jàmm mënul nekk loolu dafa wér ci sunanullah fil ard borom bi subhanahu wa taala daf ñuy nettali ay dëkk yu fi amoon jaar fi ba nu mbëroo ba bew dëkk yàlla def yàlla moroom yàlla jël yaram caw leen ko sotti ko seen kaw yàlla jël mbugalam sotti ko seen kaw ñaata dëkk la ñu yàlla di woon bis bu nekk alam tara kayfa faala rabbuka bi aad yàlla nee na xool leen ni ma def waa aad irama zaati al imaad allati lam yuxlaq misluha fi lbilad xool leen dëkk boo xam ne yàlla bi mu koy misaal dana dëkk boobu kenn defarul dëkk bu mel noonu ci kaw suuf kenn defaru ko amul ndax lépp loo xalaatoon ci jàmm ci luy indil ni tawfiix mu ngi woon foofu waaye keroog ba nu lànkalee yàlla ndax ñooñu kese la wa samuud alladina jaabu saxra bilwaad xoola ponkal yoo xam ne waa samuud nit ñu tolloon ci ponkal du ñoom du ñu tabax parce que di tabax dafa am lu mu laaj nga dem jëli fële ciment jëndi fële suuf jëndi fële fer dajale fële jëli ñee ay montagne la ñuy fekk rek ñu yett ko daal ci dëkk mu nekk seeni kër ndax ni ñu ponkalee woon ñoom du ñu tabax montagne lu mu rëy rëy buñ ko songee ñetti fan ñu def ko seeni néeg ak seen kër ñooñu ñëpp ba ñu bëroo ba bew attaqué borom bi borom bi nee na lan laa def fa sabba alayhim rabbuka sawta azab yàlla nee na dama leen a caw ba ñu xam te noonu kat jeexul de inna rabbaka la bil mirsad yàlla nee na maa ngi ci yoon wi taxaw inna rabbaka la bil mirsad wallahi loolu la aaya bi di teg yàlla nee na maa ngi ci yoon wi taxaw rek yor sama yar boobu ku jadd rek ma teg la ko ñun tamit ba ñu nammee jadd ba léegi lan lañ ci jëlee nan delluwaat saa yoo jógee Sénégal ñu ngi voté ay loi te loi yi benn baaxu ci suñu jéemee tey góor jigéen jàllul ñu ne teg leen ba ñuy xaalaat tuuti gars yi ci kanam ñu xool ñu ngi jëm léegi ci loi boo xam ne day yàq day rey nit day rey nit fekk ku ëmb ñu ne mën nañoo yàq ëmb bi loi boobu lañ bëgg a yóbbu léegi assemblée dafa mel ne waa assemblée ñoom du ñu dajeeg yàlla mukk ci kaw suuf li li Cheikh Abdou Aziz Dabbar rahimahullah doon wax eh yéen waa assemblée ragal leen yàlla xalaat leen li ngeen di watee buñ leen ko indelee ëllëg amaam Allah wallahi dëgg la jamono ju nekk ay loi rek te benn baaxu ci doo gis mu ñu ne loon lootee loi boo xam ne day tax nit ñi am jàmm moom loi yi bon rek lu tax parce que nit ñu bon ñi yahud yi ak nasaraan yi franc-maçon yi ak góor jigéen yi ak ñi mel ni ñoom ñoo yor alal ji ñoo ñëw naan def leen lii alal jaa ngi nii comme ñun nag alal moo nu taxat tiit looloo tax bépp loi nu wote waaye sunu borom subhanahu wa taala moo moom addina waa addina dañuy sonn rek benn borom xam-xam bu mag daf ma daan wax ne saa yu ma duggee ci kaaba gi ma dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar ma ne abu jahalin fen na de abu jahalin fen na de lu tax mu fen mooy baat bii la bañoon mu jóg baat bi tasaaroo na tey ci aduna bi waa aduna dañuy sonn rek yàlla li mu bëgg rek mooy am borom bi wax na ci hadisul qursi ya abd anta turid wa ana urid fa in aataytani ma urid aataytuka ma turid fa in naazatani fi ma urid atba'tuka wala yakunu ba'da dhalika illa ma urid yàlla nee na yow sama jaam maa la sàkk bind la indi la ci kaw suuf am lu ma bëgg ci yow am loo bëgg ci man soo ma defalee li ma bëgg man sa borom ma defal la li nga bëgg wallahi boo xëccoog man ci sama bëgg-bëgg nga lànk doo def li ma bëgg ma sonal la ba nga sonn te àdduna du yàgg lu dul man yàlla li ma bëgg rek mooy am ana ñu daan xeex diine démb ba léegi ana ñu ñoom ñëpp yàlla gas na pax ba mu suuf dugal leen ñu raatale leen te nit ñaa ngi julli ba tey li yàlla bëgg mooy am luwaa yi lu ñu ñëw ñëw ñëw lu ñu xeex jullit yi lunu lunu lunu lunu wallahi li yàlla bëgg mooy am dañuy sonn wal aqiba wal aqibatu lil muttaqin yonente alayhi salaatu wasalaam bàyyi loo nanu xel moom yonent mu nenu sallallahu alayhi wa sallam mu nenu isan tasarati zina njaaloo bu tasaaroowee war riba riba tas wal fasaad ak yàqute mu ne sallata allahu al amraad al fattaak wal mawtu al faajia wa gayru saa yu ñu bàyyee njaaloo rek tasaaroo walal tey allahu akbar ni nu yàq société sénégalaise dafa ëpp ay pilil pilil yoo xamante ne boo ëm boo sëyee ci guddi gi njaaloowee ci guddi gi boo xëyee boo ko naanee avorté da nga koy sawi rek mu daal di jeex génn doo ëmb mukk pilil yooyu tey dañ koy jaay ci bitig yi di ko jaay ci pharmacie ci mbedd yi yenn saa yi sax ñu koy maye. xoolal kapot yi niñ ko tasaaree ci école bi xoolal xale yu jigéen yi ni ñu tàmmee njaaloo xoolal mbon gi xoolal 24 décembre bi passé le grand xaw ma grand théâtre dan ko feesal ay xale doomi jullit ba mu fees dal ne dañuy def lan vingt xawma lan lan l'enfant ah inna lillahi wa inna ilayhi xale bu tuuti yow jullit tudd abdallah fatima khadija roqaya umu kalsum xaadim malik nga tàmm koo yóbbu grand théâtre depuis mu ngi am sept ans huit ans neuf ans ku tàmm dem grand théâtre boo amee sept ans boo amee quinze ans looy nekk lan ngay nekk ñu yóbboon seen doom grand théâtre le 24 décembre billet 10 000 francs wallahi romb nañ seen dëkkandoo bu xiif wallahi romb nañ seen mbokk bu ndekkiwul wallahi seen mbokk bu reerul wallahi seen mbokk boo xam ne mu ngi hôpital mu ngi waaj a dee amul ordonnance bu mu jënd benn mbokk léegi mu ngi yónnee fi ordonnance maa ngi ko jox bilaal bi doon noddu léegi pour ñu jàppale ko xoolal ñooñu le grand théâtre lañ fa dajale keroog ñaata la lépp ci lan koo wax mu ne damay bégal sama doom waaw bégal ko bégal ko ci lu naqari yàlla ëllëg yowmal qiyaam bu la yàlla jàppee yaag moom yëpp di ngeen xam ne bégu leen kuy bégal sa doom kay dëgg-dëgg sa biir kër jàngal leen diine waxal leen dund yonent bi wala saa nga waxal leen dund yonent yàlla Isa ma judd ca bis ba sax loolu doy na bégal waaye jël ay alal dajale ay doomi jullit te li ci gën a metti mooy bis boobu wallahi ku doon compter di xool wallahi jullit yaa fa ëpp yéeféer ya jullit yi ñoo fa ëpp nasaraan yi jullit yaa fa ëpp chrétien yi moo tax yonent bi ne bu njaaloo tasaaroowee riba tas yàqute tasaaroo yàlla dina nattu xeet wi ay feebar yoo xamante ne yu dangereux la ku ci tëdd boo demee hôpital doo dellu fa taak da leen di rey comme ça da ngeen di faju ba sonn naan garab ba sonn analyse ba sonn dara nanu dellu si sunu xel علينا أن نراجع أنفسنا أيها العباد أيها الإخوة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ينبغي أن نعود إلى الله يا من يسمعون كلامي fal nu fakkir fil amr qalilan bokk yi ci yàlla li nu war mooy nun nëpp nu ànd dellu ci borom bi tabaraka wa taala nanu tuub nanu tuub sunuy bakkaar xoolaat sunu bopp xoolaat sunu njaboot sunu digganteeg sunu borom xanaa xamuy ne doom yi ay nawle lañ te doom yi ndénkaane lañ yàlla moo la ko dénk wallahi yàlla mayu la benn doom bu fekkoon ne yàlla dala koo may dundal ak ñoom rek dundal ak ñoom nga xool léeg-léeg mu ñëw ne kenn cas yóbbu dama nga delloo si ko bu dee yaa ko moom borom xam-xam yi nee nañ wamal maalu wal ahluuna illa wada wala budda yawman illa an turaddul wadaaya ndénkaane la bu la yàlla dénk këyit gu weex tàll la gu la yàlla jox xale bi xamul dara yàlla mu ne la jox naa la ko mu xool foo koy jaarale nga jël ko di ko yóbbu ay grand théâtre di ko yóbbu di ko yóbbu di ko di ko jëndal col gu bon yóbbu barab bu bon formé ko ci lu bon ba yowmal qiyaam yaa ngi moom ngeen dekki kanamu yàlla mu taxaw nga taxaw yàlla mu ne aca waqifuhum innahum mas'uluun nañ leen taxawloo tey dañ leen di laaj ñu taxaw ci kanam yàlla yàlla mu ne doom ji maa la ko joxoon foo ko jaarale woon omar ibnul xataab benn waay dafa yóbbu doomam ci tribunalu islam ci kanamu omar omar convoqué doom ji doom ji ñëw omar ne ko ndax xam nga góor gi toog mu ne ko waaw waaw salal la mu ne dégg naa ñu ne sama baay la ah omar ne kon sa baay la mu ne waaw Omar noonu ne la jaar sa digganteeg moom ba alal ji nga am doo ko ci jox mu ne ko dafa am ay àq yu ma yoreloon joxiwul àq yooyu looloo tax man àq yi ma ko yoreel duma ko ko fay bëri na tey lu ñuy jooy sunu doom yi naan doom yi doom yi loo def yow loo def ba doom ji nangu laa déggal lan nga def yàlla est ce que yow déggal nga yàlla ba sa doom bi mañ laa déggal est ce que yow déggal nga yàlla pour soxna si déggal la borom xam-xam yi dañuy wax ne man bu ma xëyee suba bëgg a war sama gëléem wala sama fas mu bañ sax damay dem tuub xam ne am na lu ma def yàlla moo tax gëléem gi wala fas bi mu bañ dañuy dem delluwaat tuub seen digganteeg seen borom xool gëléem gi fas bi lu tax tey ma bëgg a ñëw bëgg a yéeg mu lànk am na lu ma def sama borom kon ñun ñi am suñuy doom doom yi lànk bañ a jaar ci yoon wi nan xool lu ñu def yàlla Omar ne ko loo def lan yan àq la la sa baay yoreeloon ba joxu la ko mu ne bu njëkk mooy utal ma yaay ju baax loolu defu ko mu ne ko ñaareel mu ne ko mu jàngal ma sama diine mu ne ko ñetteel mooy mu tuddee ma tur bu baax mu ne ko noo tudd mu ne ko Hanzala noo tudd mu ne ko Jolaan noo tudd mu ne ko Jolaan luy Jolaan mu ne ko mbërëng mbërëng mbërëng dem àll ba noonu laa tudd loolu la ma tuddee Omar daan ne góor gi yaa jëndoon kaan yi mu ne ko waaw mu ne nga jëmbat ko mu ne waaw nga roose ko mu ne waaw mu ne ko mu sax mu ne waaw mu ne ko nga witt ko mu ne waaw mu ne ko dara nekk fi lu nga lekk ko jóg leen ngeen dem séance bi noonu la ko Umar levé góor gi daal dem ak naqaram moo ko jëmbat moo tànnalul ay doomam yaay moo yarul doomam moo leen jàngalul diine lan la leen jàngal Sénégal lan lan nu jàngal lan lan lan nu jàngal li tax nit ñi munu dañuy wax ba sonn léeg-léeg nga dégg ñu ne nit ñi dañ leen a waar a waar ku jàngul kenn mënu koo waar kenn munta waar ku jàngul ci diina ba mu waaru munul am innama tunziru man ittabaa aldikra wa xashiya arrahmana bilgayb loolu la yàlla wax xam nga kan ngay waar mu waaru mooy ku topp alquran man ittabaa aldikra ku topp alquran moom nga mun a waar waaye ku xamul alquran koo xam ne bala muy jàng alquran am ku dee dëj am nga gis ñu tas kaamil bi wala weeru koor ñu ne dañuy tafsir pare nañ ci weer ba we kan ngeen gëj a dégg ñu tafsirati weer koor jeex na koor jeex na am na rajo yoo xam ne sax ondu alxuraan ba dagg nan ko yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu mu sore ko allahumma ighfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tu'azzibna ba'da al mawt bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير bu tollale mbagg yi mbokk yi xoolante fatt diggante yi fay portable yi ba ñu pare julli allahu akbar
الله أكبر
alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله